suñ leen waxeelee aminu gëm leen aminu gëm leen bi ma ci la nga xam ne anzalallahu yàlla wàcce na ko mooy alquran xaalu ñu daal di tontu ne wax ne noominu dañuy gëm bi ma unzila la xam ne wàccee nañ ko aleyna ci ñun mooy tawreet loolu lañuy gëm qaala yàlla nee na wa yakfuruuna ñu ngi weddi bi ma waraahu lépp lu dul tawréet ñu ngi koy weddi te wa huwa alquran alxaqu mooy dégg musaddiqan dégg koo xam ne mu ngi déggal sax li ma ma ahum téere yu ànd ak ñoom mooy tawréet ak linjiil qul waxal muhammad sallallahu nee leen fa li ma taqtuluuna anbiya allahi lu waral ngeen di rey ay yonente min jëkk yaa yaxya yéen yonent yàlla yaxya yéen a koy rey yonent yàlla zakariya yéen a ko rey lu tax ngeen di rey yonent yàlla yi min qablu jëkk in kuntum ndexem nekk ngeen muuminiina di way gëm yàlla ne wala qad jaakum laam bi muwataatun lil qasam xat bii xarfu taxqiqi la yàlla nee na wala xat jaa akum wallaahi ci dégg jaa akum dikkal na indil na leen muusa yonent yàlla muusa bil bayyinaati ci ci ay lay yu bir yàlla joxoon na ci kéemtaan kala asaa lu mel ni yet wa wal ak loxo bi nga xam ne su ko génnee dafay mel ni ay faar ci leeraay wa falaqal baxara xotti na géej la yépp ay kéemtaanam su ma topp rek taxastum ngeen jàpp al ijla yëkk wa ngeen def ko yàlla waaw yàlla nee musaa Moussa nee neen yàlla mooy ki nga xam ne moo yónni moo leen bind bind ma te yónni ma ngeen bàyyi ko fii tànn yëkk ngeen ne loolu mooy seen yàlla benn nag rek nag wéy nag soo ko taxawle sooy wax ak moom du la tontu soo ko wooye du wuyu nag woo xam ne du yëngatu di nan naññ rek moo tax mu ne suma ma ngeen jàpp al ijla yëkk wa ngeen def ko ilaahan yàlla ni min baadihi ginnaaw yàlla dégg nga min baadihi ginnaaw euh, rendez-vous bi nga xam ne mu yonent yàlla Moussa joxoon nañ ko rendez mu war a gisee ak yàlla wa antum yéen bi ngeen def loolu waalimuuna way xam ngeen xam ngeen ni way tooñ ngeen yàlla ne wa id axas naa fàttaliku leen bi ma jàppee misaaqakum seen kóllëre ala amali bi maa fi tawréet ma wëllërante ak yéen di ngeen jëfee lépp loo xam ne mu ngi ci tawréet wa rafaana yëkkati nañu fawqakum seen kaw atuura doj ñu ne leen xusu jàppaleen ma aataynaakum liñ leen indil bi quwatin ci kattan wasma wu dëgguleen leen déglu leen maa tuumaruuna lépp loo xam ne digal nañ leen bii ci loolu sima aqabulin sama aqabulin dégg woo xam ne pour euh, nangu déggug nangu qaalu ñu dewal daal wax ne tontu samina ñun dee dégg nañu qawlaka sa wax waaye wa asay naa nañu am rakk sa ndigal wa usribu jaxasee nañu fi qulubihim ci seen xol yi al ijla jaamu yëkk bi kufrihim sabab seen kefe rek bul waxal leen wax leen muhammad sallallahu alayhi wasallam ne leen bi sama bon na yaamurukum la li nga xamne ne digal na leen bi ci loolu imanukum seen ngëm bu dee seen ngëm li la leen digal leen kon de digal na leen lu bon yi jaamu yëkk loolu de du du du digal bu baax in kuntum dem nek ngeen mu'minin di way gëm قل وحل يا محمد صلى الله عليه وسلم نيلين إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت سفكين لي أمجين كروك أجان غو خمني خالصة لو جاغول بارتيكولير ما يين رك كو موم جوليتي بوكونتي محمد بوكوتي صلى الله عليه وسلم جوليتي بوكونتي كون ليغا خمو نغي دي ديف koo xam ne sa kër aljanna pare na fataman nawul mawt loo fi wut loo fiy def bëgg leen dee ngeen dem noppalu ji aljanna neex na dem leen yàlla ne fatamannawul mawta in kuntum saadiqin bëgg leen dee waaye duñu bëgg dee muk muk parce que xam nañu li ñuy wax du dëgg dégg wala yatamannahu abadan duñu mëbët dee mukk duñu bëgg dee muk ngir caay-caay gi ñu def ci àddina caay-caay ji ñu def ci kaw suuf ak weddi alquran weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak pexe boo xam ne képp kuy fexeel yonent bi di fexeel diine di fexeel jullit yi seen loxo mu ngi ci biir loolu moo tax duñu bëgg dee mukk xam nañ li ñuy fekki moo tax yàlla ne wala yatamannahu abadan du ñu duñu nàmm duñu bëgg duñu ñu mébét dee mukk bi ma qaddamat sabab bi nga xam ne jiital na ko aydihim seen loxo yi minal min kufri min kufrihim ci seen kéeféer bin nabi sallallahu alayhi wasallam weddi gi ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wallahu yàlla aji alimun aji xam la bi zalimine ci yéeféer yi fa yujaazihim dina leen fay seen jëf wala tajidannahum wala tajidannahum di nga leen fekk sax aharasan naa si ñoom ñoo gën a xéer ci nit ñi ala xayaatin ci bëgg a dund ñoom ñi wax am nañu kër àllaaxira kër googu mooy àjjana soo demee sax ñoom ñoom ña gën a bëgg dund ci ñi nga xam ne amuñ kër ga kër foofu moo tax mu ne walla wala tajidannahum da nga leen wallaahi da nga leen fekk aharasa naas ñoo gën a xër ci nit ñi ala xayatin ci dund wa min allazina ñoo gën a xër ci gaa yi nga xam ne ashraku bokkaale nañu dégg yawaddu dina mébét ahaduhum kenn ci ñoom law yu amara alfa sanatin ak a neexoon ñu dundal leen junniyaat kenn ku nekk ñoom ñi wax ne am nañu kër ak àjjana goo xam ne ñoom rek ñoom yahud yi ñoom ñoo ko jago jullit yi bokkuñ ci nasaara yi bokkuñ ci waaye nag koo fëgg dënnam di fekk moom moo gën a bëgg dund ak a neexoon sax yàlla bàyyi ko fi ci àddina alfa sanatin junni junni at yàlla nee na wa maa huwa déet kooku di mébét ñu bàyyi fa junni at bi mu zahzihi ñu koy soreel minal azabi ci mbugal doonte dundoon na ñaari junni at du tax yàlla soreel ko mbugal mu safar an yu amar alfa sanatin wallaahu yàlla basiirun aji gis la bi maa yaamaluun ci li ñuy jëf